loolu ñun moomuñu ko donc tout ces problématiques aussi souligné neen ko du euh, du la revue mais voilà il faut favoriser ces initiatives et tout mm-hmm. ça passe par l'État mën a faciliter aussi l'accès pour mën a lancer ces euh, ce genre d'initiative l'entrepreneuriat euh, c'est c'est un point important mm-hmm. l'État moo bëgg a insister ci cette question c'est sur mm-hmm. l'entrepreneuriat parce que le développement d'un pays il faut d'abord développer le pays par ses ressources humaines. effectivement euh, ressources humaines ñoom ñooy indi. Mhm. comme li nga wax euh, man ak Alamine Senghor ak Thialalum ñu créé suñ benn entreprise euh, tàmbali ko ci wàllu entrepreneuriat tàmbalee peut-être cent francs dem ba après cent millions. Mhm. mais l'entrepreneuriat ci Afrique c'est très difficile moi je prends l'exemple du Sénégal. Mhm. dañuy ubbi benn société bu ndaw. boo xamee ni ñaari nit ñett ñoo koy bokk mais boo dawalee boo moytuwul six mois société bi tëj. parce que doo am marché yi nga bëgg. Mhm. doo am li nga bëgg. Euh, la nga ci defoon nga perte lépp peut-être xaar ba nga bëgg xaar pour mën a gagner un peu ci li nga li nga ci jotoon na investir day jafe. Mhm. Euh, comment faire. prospérer cet entrepreneuriat et surtout donc pousser ndaw ñi ñu dem ci entrepreneuriat ba bañ a peut-être xaalis ba ñuy jël di ko dugal ci gaal yi euh, di dem ci ay immigration irrégulière effectivement alors même problématique boobu la ñu posé aussi d'où euh, le lancement de l'incubateur on l'a lancé en juin euh, je suis la fondatrice donc ñun souhait bi la ñu am ñu ngi def suñu ay propres moyens parce qu'on va avec nos propres moyens parce que lépp loo gis mm. c'est une structuration organisation parce que mën nga gis nit ku lancé wu un an après deux ans après euh, mm. kii mm. alors que au début nit ki boo ko waxee ne étape yëpp fu mu war a jaar mu mën a structurer mën a organiser peut-être yooyu mën na ko yenn faillite wala yenn perte yi mën na ko éviter du euh, suñu incubateur bi ñu lancé nga xam ne dañuy accompagner surtout les jeunes parce que jeunes yi dañuy bëgg lancer wu mais ils ne savent pas par où commencer mmh. surtout les jeunes les accompagner et surtout mmh. euh, un programme de mentorat koo xam ne réussir na ci entrepreneuriat au moins mu mën a orienter les jeunes yan difficulté nga mën a faire face bés boo jànkoonteex difficulté yi comment faire pour en sortir et et cetera et est-ce que am ngeen euh, occasion pour peut-être exposer nga xam ne moo di revue bi pour plus de visibilité par exemple ici au Sénégal. alors ici au Sénégal euh, oui euh, ça avance petit à petit euh, on essaie de de participer aux aux événements surtout pour plus de visibilité et puis voilà on est là euh, chez vous donc may kii ngeen may ngeen opportunité bi. Mm-hmm. et on espère que on aura de plus élargir la visibilité. est-ce vous arrive parfois ngeen étudier. euh, le développement euh, africain en quelque sorte, le continent en tant que tel, surtout dans le cadre économique, surtout parce que euh, comme kay expert ngeen di saytu di xool ci lu jëm ci développement économique euh, quand on sait que par exemple il y a eu euh, ay ay yoo xamante ne on l'a vécu récemment avec la Covid-19 avec entre autres surtout dans le continent africain certains coups d'État est-ce que cela ne peut pas impacter justement notre évolution économique si ça n'impacte bien lan la ñu mën a def pour justement peut-être pouvoir sortir euh, le continent surtout les pays touchés par cette crise soit par la covid ou soit par des coups d'État ci wàllu économie. effectivement alors l'Afrique ñëpp xam na ni c'est une terre riche on a beaucoup de ressources donc coup d'État il faudra déjà analyser qu'est-ce qui a provoqué ces coups d'État déjà xam nañ dinañ am impact distribution et répartition des richesses. voilà souvent li indi problème bi mooy. Euh, effectivement suñu réew. riche nañu au mm. plan sous-sol am nañu or am nañu diamant am nañu nangam. mais man mi dëkk Kédougou. Mm-hmm. Euh, y a ay euh, entreprises yu exploité or. Mm-hmm. mais maa gën a maa gën a pauvre ñëpp. Euh, mauvaise répartition boobu tamit ça pose problème. oui donc euh, man je me dis sur le euh, sur un point de vue économique il faut mhm. voir lan mooy provoquer li retardé développement Afrique. donc pourquoi c'est coup d'état parce que ñëpp xam nañu est-ce que jàngat ngeen loolu. si si si euh, du euh, la revue chaque fois dañuy euh, dañuy suivre actualité aussi. Mm-hmm. donc ñun lu ñuy proposer mooy déjà pour éviter même ay coup d'état yooyu noonu nañu exploiter suñu capital humain mooy déjà un par la formation. Mm-hmm. voilà par le mentorat mën a accompagner à travers ces incubateurs parce que incubateurs yi dañuy ñëw rek compléter la formation supérieure. au moins ñu mun la initier rapidement dans le monde professionnel te tey ji ñu bëri jaar nañ école mais peut-être y a des aptitudes yoo xam ne euh, acquérir yuñ ko école comme euh, comment entreprendre qu'est-ce qu'il faut pour entreprendre et donc yooyu noonu yëpp ce des bases man je me dis il faut une réforme structurelle xool à la racine pour mun voilà jëm vers le développement. Mmh. Sénégal 2019 euh, ou bien 2012 ba léegi. selon Aly Ngouille Ndiaye bien sûr bi nga xamante ni candidat la à la présidentielle 2024 il dit que euh, fi ñu fekkoon euh, li nga xam moom mooy peut-être euh, taux d'endettement bi ak fi mu nekk léegi dafa am différence évolution la am ci li nga xam moom mooy mhm. justement ces ces douze ans de gouvernance du président Macky Sall est-ce que endettement boobu peut-être dafay justifier la crise économique bi nekk Sénégal ou bien c'est tout à fait le contraire, selon justement l'expert qui est, mm -hmm. l'expert qui est en face de nous Alors déjà, il faut euh, tenir en compte les chocs ex exogènes. Mm -hmm. Crise du Lucibi, à ah, pandémie Covid. Donc nous, on est des pays pauvres. Des pays pauvres, entre guillemets. On est riche, mais on est des pays <laughs> pauvres. Donc, il y a un impact. Parce que tu as dit, nous avons un problème. Parce que même Europe, Amérique ñoom ñëpp ils ont subi les mêmes euh, problèmes donc ñun euh, répercussion boobu day day dal si ñun. Mm-hmm. d'où l'augmentation des dettes euh, des dettes publiques. d'accord. d'accord jeune euh, consultante en finance. Mm-hmm. gouvernance risque et conformité. Mm-hmm. li ci man li ci li ma ci neex en fait c'est cette semaine de l'Afrique des solutions parce que souvent on voit l'Afrique plus Hmm. l'Afrique des problèmes, l'Afrique des crises, l'Afrique des, hmm. des difficultés. c'est pour surtout wane ni am na ay ndaw. Hmm. entrepreneur yoo xam ne ñu ngi ciy génn. Euh, yan exemple ngeen di ngeen di mettre en exergue pour justement ku mel ni euh, sama benn rakk bu nekk fële ne ni bon moom quelque soit alpha day jël gaal gi kooku ne ni ah attention pourquoi ne pas faire comme un tel. peut-être qui est parti avec 3500 ou 10 000 francs mhm. mais qui aujourd'hui a réussi am lu ko lu ko ëpp est-ce que loolu ngeen di gën a mettre en a mettre en exergue déjà avec cette revue et puis am nañ ay projet def ko sous format vidéo d'ailleurs comme ça mu mën parce que am na ñoo peut-être ils ont pas le... Mhm. donc lépp pour sensibiliser leen wax leen voilà Afrique fi ngeen di dem Afrique moo ëpp moo ëpp richesse mhm. il suffit nga xam yoon bi xam fi ngay jaar aussi état bi aussi mën a élargir aussi euh, ce chemin mën leen faciliter aussi pour que ñu génn déjà ci secteur informel bi dugg ci secteur formel bi ñu faciliter aussi l' accès au financement surtout parce que moom mooy problème bi gën a mag financement et voilà donc ñun lépp lépp la ñu mën a euh, un autre problème mooy euh, le secteur privé voilà secteur privé qui ne se sent peut-être pas forcément impliqué ci alors que développement bi nekk ci base bi effectivement boo doon def xayma Mm-hmm. Euh, Sénégal comment se porte le Sénégal ci sa gis-gis en tant que euh, ku ku yëngu ci wàllu woowu ci wàllu gouvernance ci wàllu kër mm-hmm. bonne gouvernance enfin financière ak yu ni mel nag nga gisee Sénégal boobu ba alors euh, ni ma gisee Sénégal c'est je pense qu'on peut le voir mm-hmm. les jeunes sont désespérés parce que gars yi rek c'est un c'est un fait nekk ñu ñuy wax c'est un fait ñu ngi koy gis donc ça veut dire qu'est-ce qui pousse jeunes yi ñuy dem di génn ils n'ont pas d'emploi ñii dañuy jàng fay école ba ba master euh, mm -hmm. ba mhm. master 2 mhm. après ils n'ont pas d'opportunité donc man je me dis que y a beaucoup de choses y a cette volonté parce que voilà ku ñëw rek nguur bi ñëw di nga teg sa sa programme euh, le, souci mooy qu'on l'applique mais correctement aussi. est-ce que loolu mënul expliquer incubateur social euh, vision ak innovation bi nga xam ne taxawal ngeen ko. voilà alors incubateur bi euh, ça regroupe plusieurs euh, activités. Mm -hmm. son son activité principale c'est comme on en parlait tout à l'heure c'est d'accompagner les entrepreneurs dans leurs projets à impact. donc euh, tout ce qui est comme tey jii man ma bëgg a lancé wu wala kenn bëgg a lancé wu ne ah man tey jii dama bëgg xool dama bëgg def étude de marché xool si lan laa mën a investir Sénégal lan moo ma mën donc ñun on t'accompagne pour faire l'étude de marché l'étude de faisabilité constituer ce business plan jusqu'au euh, jusqu'à la phase lancement xam nga boobu dina structuré di nga am ku la jàppale wan la ne nii ak nii ngay jaar donc ñun loolu moom mooy suñu corps activité avec parce que c'est une association, on part euh, de nos propres moyens, donc avec d'autres euh, euh, volontaires. yoo xam ne aussi ils vont venir avec leurs expertises ñëw bu fekkee kii il est spécialisé en informatique ki nga xam ne dafa bëgg lancer wu en informatique kooku mën na ko conseiller si dans certains domaines et beaucoup d'autres et suñu yeneen activité aussi mooy bëgg nañu mettre en place un projet qui va avoir un impact environnemental parce que aujourd'hui c'est le sujet mm-hmm. d'ici impacté wuñu noonu en Afrique mais commencé nañ ko gis déjà en Libye ak ce qui se passe au Maroc donc mu ngi ñëw et ce sera des sujets euh, d'ici cinq ans yoo xam ne ça va nous impacter donc commencer déjà par euh, octroyer des, euh, des lampes solaires dans les villages reculés déjà au moins ça va participer à l'écologie et et puis euh, ñi dëkk village dañ ci gis seen bopp donc tout ça ce sont des projets mm-hmm. suñu ay ambition la ñu am pour pour que ñu mën a jëmale suñu suñu réew kanam et on, on espère que dina. mais mm-hmm. euh, aujourd'hui est-ce que l'état sénégalais. mu ngi non pas encore est-ce que ñeneen ñu ngi leen di jàppale. non pas encore donc finalement yéen seen volonté ngeen. suñu volonté suñu propre moyen voilà. ak seen seen expérience ngeen am. pour ñëw ne nii bon euh, c'est possible mais personne ne vous accompagne. oui voilà accompagner les parce que tey bon y a des structures yuy taxaw ci wàllug. financer les jeunes. Mhm. par exemple ay DER euh, DERFJ su ma jóg y' a des structures fi nekk pour. Euh, mhm. la formation des jeunes pour mel ni euh, mhm. office national de la formation professionnelle. am na yeneen structure ak ay yu ñu fi teg. mais jël fonds jox ko tey ñu ngi joxe ay. Euh, comme DER lu muy joxe financement mais nga ñëw financer Fatoumata Thiaw te xamul moom la nga ko jox. lan la ciy def. maanaam ci wàllu entrepreneuriat. yéen la ngeen bëgg mooy fexe bëgg. orienter nit ñi. ba quel que soit le financement fu mu mën a jógee. mais lañ koy dugal mu mën leen a jëriñ dara. effectivement même sur ce côté financement aussi proposer nañ si ay solutions par rapport à l'État parce que financement il ne c'est pas obligatoire que mu nekk que pécunier que mu nekk que xaalis. xaalis kese waaw nit mën na bëgg ibbi salon nga fournir ko matériel salon yi mm. et puis état mën na bañ a joxe loo yëpp euh, xaalis bi wala kii mu def ko étape par étape pour am une visibilité suivre aussi son avancement xam nga loolu dina tax nit ki dina mën a suivre pour mën a jotaat beneen tranche am d'ici 6 mois wala d'ici 1 an donc tout ça ce sont des, ensembles de solutions yoo xam ne on a réfléchi à ça gis mm-hmm. gis nañ ko peut-être fen mën ko transposer ici pour au moins am ñu am continuité bi parce que di octroyer financement aussi il y a des personnes qui à ça wala ñi ko ñi ko jot aussi euh, mm-hmm. kii yu leen jëriñu leen dara aussi ça n'a Qu'est-ce qu'il ah, faut comme minimum mm-hmm. financièrement mm-hmm. pour ouvrir son son petit business comme on dit. Ça dépend. Pour se lancer dans <laughs> l'entrepreneuriat. Non, je demande à la peut-être spécialiste sur ce plan qui euh, am ay expérience euh, am ñu muy mm-hmm. liggéey lu mel noonu. moi jeune je prends cinq cent mille francs dugal ci gaal est-ce que ce cent mille francs là bi may jël dugal ci jël euh, jël gaal pour dem peut-être foo xam ne wóor ma sax dinaa àgg. mën na ma jural dara. peut-être surtout ci ban ban domaine laa ko mën a dugal ak ban temps la may la mooy mooy euh, étude de marché bi may def mais après aussi mhm. mën nga jël sa 500000 bëgg a sa entreprise après kii démarche yi mu métti ba mujj gi da ngay décourager sax mhm. c'est ça ah. donc euh, moom la ñuy wax ni foofu la état war a intervenir mën leen mhm. faciliter loolu parce que mun nga lancer wu surtout même avec parce que j'ai pris l'exemple d'un monsieur du Côte d'Ivoire. boo xam ne il est parti avec 60 000 francs te mhm. tey aujourd'hui son chiffre d'affaires c'est des millions mhm. donc lépp ci lan la investir noonu euh, poulailler Ben Aziz Konaté ay nen la tàmbalee moom. te tey mu ngi nii il est voilà tu vois euh, donc mën nañu commencer comme qui est candidate je pense que est également dans le même secteur. on a vu d'autres ñoo qui sont dans le BTP qui ont démarré avec benn cent mille francs. Mhm. Euh, après mujj dem ba am seen i BTP yu mel noonu. donc mën nañu commencer possible. mais il faut. ñu mën ko wax nit ñi mm-hmm. mais wan leen tamit wan leen tamit yombal aussi euh, yombal nu ñu ko nu ñu ko mën a yombale léegi léegi sur ce Fatoumata ban conseil ngay ngay jox entrepreneur africain yi surtout ñi nga xam ne ñu ngi hésité pour pour bëgg a dugg ci entrepreneuriat alors man conseil bi may joxe rek mooy euh, déjà pour euh, entreprendre il faut beaucoup d'aptitude commencer par les moyens du bord et puis tamit bés boo amee sa bénéfice bu ko gaaw bu ko gaaw dépenser et réinvestir encore ba nekk à l'aise financièrement donc loolu c'est important aussi la formation aussi nga investir si sa bopp parce que entrepreneuriat ça ça euh, ça demande beaucoup de choses et puis qu'il se lance parce que yëpp il faut se lancer pour savoir et puis il aura toujours de difficultés il y aura toujours des obstacles parfois di nga tomber ci ay nit ñoo xam ne voilà ils ont pas les mêmes valeurs que toi etc mais euh, toujours euh, patience et résilience pour euh, voilà arriver au bout Hmm. Euh, malheureusement au Sénégal euh, je pense que c'est la patience qui fait parfois défaut ci li ci lu jëm ci wàllum wàllum yow moomee hmm. euh, maanaam ay investissement ci ñoom seen puisque hmm. je pense que manque de patience boobu peut-être mën na justifier quelque quelque quelque chose ci li nga xam ne moom mooy peut-être li pousser les jeunes d'aller en tout cas en maire pour Euh, chercher l'Eldorado. Mm -hmm. mais ba tey ci ci ci ci bind bi nga bind da nga ne. Euh, li nga xamante ne moom mooy maanaam pauvreté bi. sëy bi fu mu nekkoon mu ngi wàññeeku. Mhm. Euh, diggante deux mille dix neuf bon deux mille dix ak deux mille quatorze mhm. na quarante ba ñëw trente quatre pour cent mhm. surtout dans le continent africain euh, avec les pays de de de l'Ouest mais est ce que loolu étude la d' accord résultat yi génn na mais est ce que loolu ça se sent pour askan wi nga xamante ne ñoom ñooy dund par exemple quand on prend le Sénégal nga ne ñu diggante. 2014 euh, 2010 ak 2019 euh, taux de pourcentage bi ci pauvreté jóge na 40 euh, pour cent ñëw na ba 34 pour cent mais est-ce que sénégalais yi ñàkkoon 2010 2019 hmm. wala 2010 en 2019 est-ce que ñu ngi sentir exactement que ne taux de pauvreté bi mu ngi mu ngi mu ngi wàññi ban ban maanaam yan critères nga basé wu pour peut-être def cette euh, euh, euh, la Banque mondiale FMI donc c'est basé sur peut-être le de vie et etc après il faut en compte ça c'était de 2012 ou 2010. 2010 jusqu'à 2019. Mm. a la Russie a, il y a eu. Covid donc actuellement on peut plus en 2022 je pense. approximativement de 6% la ñu prévoiroon mais là ils sont à 4% donc là actuellement on peut pas dire que affaire bi kii na même ni tu viens tu vois réalité bi ce qui se passe mm. euh, euh, ça ne pas ak euh, ak ce qui se passait mm. entre 2010 et 2019 le budget pour 2024 c'est approximativement 7000 milliards si je me trompe mm. budget budget voilà budget ce qui est budgétisé. <laughs> <laughs> merci beaucoup euh, voilà c'est ça donc pour pour revue bi ku ko alors ku ko euh, là euh, on va distribuer dans les librairies et euh, je le mettrai sur mes réseaux mais on est sur les réseaux aussi ñu ngi aussi ci euh, www.visioninnovation.com voilà foofu boo fa duggee rek mu ngi en ligne on peut l'acheter en ligne et il y aura bientôt des points de vente ici euh, au niveau du Sénégal. D'accord en tout cas merci euh, Fatoumata Thiaw fàttali ni mu ngi nekk consultante finance directrice publication revue Budget Afrique finance revue fondatrice incubateur social vision ak innovation comme question bi sànq rek ñu am yaakaar di ngeen gën a liggéey ci lu jëm ci seen wàllum visibilité mhm. surtout ci réew mi. Mhm. effectivement oui oui. ki suñu projet la nekk. ci projet la bokk incha allah merci mm. euh, euh, mm. euh, surtout war nañu xool. Mm. y des possibilités ah. mën nga ubbi c'est vrai que il faut que état jàppale ndaw ñi. ci pas ci. jox leen li ñu naan euh, di leen financer mm-hmm. ndax li ñuy wax naan ni euh, nit ki nga jàngal ko napp moo gënal ngay mm-hmm. xëy chaque jour di ko jox jën euh, ñu yombal leen ba nga xamee ni da nga bëgg ubbi benn mm-hmm. entreprise maintenant je pense qu'il y a des efforts qui ont été faits par exemple boo bëggee dem fu mel ni APEX pour mën a enregistrer cette structure sa se en 48 heures peut-être que yenn ñu lay laaj du bëri euh, ñu bëri léegi boo xoolee ñu bëri dañuy ubbi yooyu da ngay gis ko ubbi salon de coiffure am euh, fekk na enregistré wu na dem na ba Apix ba am euh, Nineam am yëppam ak yooyu donc c'est c'est peut-être plus côté information côté mm-hmm. sensibilisation pour permettre justement d'ouvrir mais surtout man sénégalais moo ubbi sama benn structure bu ndaw di jaay ginaar na ko sénégalais yi jënd mm-hmm. waaye boo ñëwee ubbi sa structure bu ndaw di jaay ginaar wala nen Euh, ñu romb la dem euh, importer ji ko mm. moo tax ba man li ma sumb du mën a ñoŋ duma ci mën a am dara fan laay mujjee tëj ko mm-hmm. lu néew lu ma ci jotoon a am ma jël ko dugg Nicaragua wala dem dugg ci gaal bi pour dem sans savoir ndax dinaa àgg ou pas uh-huh. jeune qui a qui est de téléphone portable mm. qui vend téléphone téléphones jël jël yëpp tay ko jaay ko xaalis bu mu ci am mu dugg ci euh, gaal c'est parce que sóoraale ne lii muy jaay nii. Mhm. du ko yóbbu fenn. Mhm. alors que yow état yaa war a def yow régime yaa war a def de sorte que moom téléphone ba muy jaay mu gis ci boppam xam ne. Mhm. peut-être cent francs la jaayee te jaay na ñaari téléphone mais li wóor mooy. état ci boppam mën naa ñëw jënd ci moom téléphone. ba fii peut euh, ci ci un an dina jaay cent téléphones dina jaay deux cent téléphones il faut nécessairement que l'État puisse également accompagner. te euh, peut-être jël ñu mel nii euh, Fatoumata Thiaw pour ñu nekk ñoo ñëw taxaw ci kanam ndaw yi ji wax ak ñoom. pour peut-être des des solutions puisque ak incubateurs yi ñu yore tamit c'est mm-hmm. important. en tout cas merci à elle. Mm-hmm. et encouragement et merci aussi à vous autres de. Inch'Allah, euh, merci à toi yaa merci encore Fatoumata Thiaw léegi léegi ñu dugal Fatou Kiné ci seen rubrique mode astuce et beauté. magal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 yéen abonné canal yi am ngeen gan bu mag a mag waaw waaw bis yi ki tey mën ngeen seetaan Leral TV si seen bouquet canal plus ak image yu leer nañ boo ko bëggee jàpp defal numéro canal bi di 221 neex na jàpp lool comme indicatif Sénégal Leral TV mooy télé bi leen di indil xibaar yu bees tàkk te weex ci tàng-tàng bi te it di leen digtal mbooleem lépp solo ci internet bi dara dootu leen raw Leral TV daal mooy takkandeeru réew mi es au courant de ma nomination non. c'est sur leeral point net. yëg nga sama nomination. déedéet. ñu ngi ci leeral point net.